naa leen fii bu dee dama war a joxe sama bakkan pour Sénégal baax définitivement je suis prêt. kontaan ci tool mais li may wax patriote yi léeg bu dee ay affaire u Mumbai ak affaire u loo xam ne festivité la wala yu mel noonu. bu ñu nee su waxtaanee sax bëri jël tudd peña dugub nga gis.